di la ziar mbaa yaa ngi ci jàmm bu baax a baax maa ngi ci jàmm ju bëri maa ngi lay delloo ziar soxna Naata bonjour à, euh, à toute l'équipe et puis di euh, nuyu mbokku téléspectateurs yi et puis les internautes euh, qu'on n'oublie pas bien sûr donc ñu mu ngoog on termine semaine bi euh, ak le même climat euh, à peu près c'est-à-dire asamaan soo xamante ni dafa muuru un ciel chargé euh, en eau sur la quasi-totalité du pays niir yaa ngi ni nuage dense lañ koy wax moom excepté diggante Saint-Louis Louga ak Thiès foofu nga xamante ni moom asamaan si dafa niis mais teewul le ciel n'est pas totalement couvert taw bi moom ñu ngi koy séntu ca duggu euh, ak Kolda ci suba gi ça arrive du euh, du taw bi côté boobu lay jógee euh, fi mu toll nii et puis côté température. ñu ngi tàmbalee vingt quatre degré ci Thiès vingt cinq en remontant ci Louga vingt sept à Dakar ainsi que Saint-Louis Kédougou vingt cinq ci Ziguinchor vingt huit degré au centre et puis degré euh, température maximale euh, pour Matam comme tous les jours euh, digg bëccëg bi moom tàngaay bu takku mooy desandi si dëkk bi ba tey il fait extrêmement chaud même bu ñu gisee fii trente deux degré ca Dakar au niveau du ressenti tàng na. trop trop fi mu toll nii da ngay yeewu rek fajar soxna naata di ñàkk tooy mm-hmm. xepp te demaguñu fenn il fait très très chaud 33 mm-hmm. degrés ci Saint-Louis 42 à Diourbel bassin arachidier bi moom on dépasse les 40 degrés 46 la maximale ci Matam 40 à Kédougou ànd ak taw bi ci Kolda aussi ci après-midi bi et puis Ziguinchor foofu ñu ngi fay am 36 degrés jant bu fenk diggante Saint-Louis Louga ak euh, Matam ànd ak euh, ba tey euh, ay niir yoo xamante ni dañuy doxantu par intermittence ci asamaan si gis-gis bi également moom leerul nañ di jugee bët gànnaaru réew mi fii ci kaw jëm penku mu ngi noonu depuis plusieurs jours consécutifs poussière baa ngi fay baa ngi fay teew c'est à observer également ci fii ak week-end bi incha allah le taux d'humidité moom il est à 79 pour cent c'est tout à fait normal vu que le ciel est chargé en eau donc climat bi dafay dafay mel ni lu xaw a guus c'est pas très très agréable ci yaram ñu dem ci géej gi 7h55 à nouveau marée haute midi 20 également marée basse 18h43 lay doon ci kanam tuuti et puis de pêche rek ñu jàpp 16h30 euh, jëm 18h30 activité moyenne aujourd'hui pour le soleil 6h43 rek la yeewu woon et puis 19h41 minutes mu daal di euh, daal di sow ba ëllëg euh, incha ba ci kanam. une tasse de café puis je incha allah ba ci kanam euh, incha allah tey euh, benn plat laa lay servir mais ci kanam tuuti dinaa la ko wax incha allah ci ñaareelu pàcc bi bu leen fàtte Souleymane Niang dina fi teew ci jàngat bi ak sommet bi sur le nouveau pacte financier mondial bi am jamono ji ca Paris dina ci indi ay euh, leeral buñ ci noppee Cheikh Oumar Anne di ministre de l'éducation nationale nekk itam maire bu Ndioum dinañ ko dalal tout de suite ñu jàll ci focus culture. alors am na benn plat euh, bu ñu naan euh, mbaxalu araw moom nag euh, dafa bëgg am place am ci kër yi ci Sénégal maanaam bu ñu defee ceebu ñu nag ñoom maa feeg yu ni mel mu ñëw ñiy promouvoir plat boobule dañoo bëgg gën a suqali tamit suñu consommer local maanaam li ñuy defaree fii ci réew mi ndax loolu base bi dugub la te dañ koy bay fii ci réew mi alors Ibou Diouf ànd na ci ak Pape